du Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coalition Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi fu ñu jom ndox amu fa ubbi l'observateur nappante ne nañu nekkul ci réew mi waaye fa mu nekk dégg nañu fa mu yëkkati ay kàddu di xamle ne soxlawuñu benn njekk ñaanuñu benn faveur li wér moo di bu garab yi doon fàq suuf si di jalaa ñoo sax du tey coalition Yewwi Askan Wi dañuy bokk ci élection législative yi manifesté gi ñu woote suba ci àllarba ji Barthélémy Dias na ñi ngi ciy woo ñëpp ngir ñu dajee dajaloo lànk kandaare seen liste proportionnelle personnel bi ñu bëgg a génnee ci élection législative yi maire Guédiawaye ba woon di Aliou jël ci journal bi mi ngi woo jeunesse républicaine bi ngir ñu génn taxaw jàmmaar la ak opposition bi Aliou Sall nee na du ñu toog di seetaan opposition bi di jaxasi réew mi njiital Africa Jom Center di Alioune di yëglu ci xët mu njëkk l'Observateur nee li amoon ci réew mi ci weeru mars ba ñu koy waxtaane ak di ko moytu saa su nekk bu ñu moytuwul dinañu dundaat lu ko raw ci bi l'observateur xëy di laaj moo di ndax photo yi am woon conseil constitutionnel dëggal na ko conseil constitutionnel mi ko def journal La Tribune mi ngi xëy di laaj ndax waree su ko fee jëlee taal conseil constitutionnel mu lakk ba jeex tàkk ñëpp nuppaloo professeur Amsatou Sow Sidibé ne ñu ci yéenekaay bi lu ëpp tuuru conseil constitutionnel dafa politique ba mu ëpp njaga la ne ñu ci yéenekaay bi génnee opposition bi ci élection législative yi xàmmee d'état ci démocratie Sénégal waa mouvement Y en a di xam ne ne conseil constitutionnel ak li ñu def nañu xam ne dugal nañu réew mi ci guut ak politique goo xam ne xamuñu fan la ñu jëm ak moom réew mi quotidien nañu ñoo ngi jëm suba ci àllarba ji àllarba joo xam ne lu nekk mën naa xew ci réew mi mercredi de tous les dansé opposition bi tënku ci yeewu askan wi nee nañu dañuy manifester suba ci àllarba ji waa Benno Bokk Yaakaar taxaw ne ñoom it dañuy riposter sursoi nañu ak lu ci mën di xew waaye yeewu askan wi nee nañu seen manifester gi ñu bëgg amal suba préfet bu ko mu bañ koo autorisé la ñu yamale danañu dajale seenu ñooñ wax ak ñoom discours Bougane yi aw yoon waat élection législative yi li ci direct news gis moo di ñaari jur jàng yi gën sonal Macky Sall la ñu éliminé élection yi ñu jëm journal Life mi ngi ñuy xamale ku nekk ci war a tiit ne muy waa Yewwi di waa Bokk Yaakaar di Gëm Sa Bopp ku ci nekk ci ñoom yaa ngi yàbbi ay kàddu yu mel ne xeme ndax weex Barthélémy Dias nañu ci àllarba suba ji ci la tàmbalee xeex bi ñuy xeex contre troisième 2 ñu ci journal bi fitna sax moo ci mën a ñàkk ne conseil constitutionnel dogal na li ko yoon may li war ñëpp moo di ñu ànd ci nangu ko ñu nangoo ci aw làmmiñam ba tey moom Souleymane Ndiaye directeur des infrastructures aéroportières muy félicité président Macky Sall ca la mu demoon ci Russie la mu fa doon lijjanti ak la mu fa jële ñu jël soleil national pèlerinage marial bu Popenguine bi jeex démb ci la xëy tey fitna ji ci réew mi corruption bi ci wax dëgg gi ci réew mi yéenekaay bi nee nañu jàngu bi ci réew mi di monseigneur André Guèye ak kàddu e pèlerinage marial bu Popenguine jàngu Rwanda stade yéen nee nañu tey ji la ñuy football mu di max qualification Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 yéen kaay bi nañu ginnaaw bi gayndee Sénégal yi wullee waa benn keroog samedi wulli yu métti ñetti bal ci benn ñoom gaynde yooyee ñoo ngay jawali ci kaw Rwanda journal las nañu maxub Sénégal ak Rwanda tey ji ci ngoon la bu 18 heures jotee maanaam 6 heures ci ngoon fa ñu koy footballé di ci ci stade Abdoulaye Wade bu jam ñaajo direct ci news nee nañu stade ba tàmbali yàqu xaat pelouse ba ngay cuqatiku turbine ya poussière ba ku fa toog boo jugee sa yére yàqu problème lumière ñëw dooleeku ci gazon bu stade Abdoulaye Wade ba ca jam ñaajo bi tàmbale yàqu source ab scandale la ko jàppee ba dañu leeralal li ko waral grand bal gi Youssou Ndour di waajal ca Paris la France l'observateur xëy na ko ci xëtamu njëkk fukki fan ak juróom-ñett Youssou Ndour wàllum kaaraange di sécurité l'observateur nee nañu mooy li gën a fës ci réunion ba